bi day proposer dig loolu askanu Sénégal ne su ñëwee dina respecter lii di séparation des pouvoirs mais à la limite ne nii à la fin quoi su ñëwee. mais moom laa lay wax loolu moo ma jaaxal moo tax may def nànk parce que même man ñëw naa sax ànd ay nit mais dé déggoo mën la xam nga lan mooy baadoo la la moo mot xam nga lan mooy baadoo la baadoo mooy. nga gis nit foog na yaa ko gën nga gis nit nit comme yow yàlla sàkk leen ngeen nekk ay nit yàlla sàkk doomu aadama nga foog na yow yaa ko gën ci ndax yàlla may na la al alal wala may na la daraja nga foog na yaa ko gën loolooy baadoo la te soo xoolee senegal fii nu niti di doxali ne ñu ci bare doxalinu baadoo la la ñuy doxale parce que euh, matériel la ñuy jiital foog na ñoo gën nit yi donc ce qui veut dire ne que on est dans un système rempli de baadoolo de ba mën la état bu la fi tegee te nga war a servir les gens c'est-à-dire que yow boo gisee ne ñi ngay servir yow yaa leen gën a doxin rek yaa un problème da nga war a wàcce sa bopp yow kañ ñoom nga war a yëkkati loolu mooy jiit mais yow boo taxawee foog na yaa leen gën dugg ci yenn oto yi dugg ci yenn nekk ci yenn statut di vivre yenn train de vie yi nit yi nga xam ne ñooñu nga war a jox nga yow nga toog ñooñu nga leen di gis ñuy vivre misérablement yow nga dund dund di mais ñooñu kooku kuy doxali na noonu rek kooku si man loolu lay baadoolo loolu moom mooy euh, baadoolo tey ji euh, gis nañu euh, ci biir semaine bi ki nga xamante ne moo di ancien premier ministre Hadjibou Soumaré mhm. pour des interrogations ñu woolu ko sécurité urbaine fanaan loo ko fa benn guddi toog teg ko léegi sous contrôle judiciaire parce qu'il a osé poser des questions concernant son pays tey jii naka nga jàngatee cette situation la c'est pas normal ku nekk war nga su la neexee poser question Sénégal ñun ñëpp a ko bokk X moomu ko Y moomu ko Z moomu ko c'est un pays de tous les Sénégalais ku taxaw ku la mun ku la ku jóg war nga laajte fii suñu xaalis mu jaar nu mu def. mën nañ la woo nag nee la su dee lu nga wax du dëgg nga nga nga nga nga prouver su dee tu dii dit que mais moom il pare que sax kii wul euh, accusé wul dafa ne rek. dafay laajte. waaw donc loolu si man il a le droit léegi nag bu dee bon dañuy dem bay tëj nit yi peut-être parce que ñu ngi xalaat ne mën na déstabiliser le système et au <laughs> quand je vois man su ma gisee ñuy wax naan tremblement de terre am na Turquie xaw ma. Mhm. ñu jël ay ñaata millions joxe ko foofu. nu tudd yo yo yóbbu fa suñuy sapeur également. non sapeur sax garaaw mais ñaata million lañ fa joxe na ah bëri na. fii amul ñu fii man am na ñu xam ne ay 2000 francs lañ di wéef jibi jox ma damay yónnee ba sama wéef ay 5000 may ñu ne ma jibi baax baax na yónneel ma yónnee ñuy jël ay ñaata million di ko yónnee ay turki taxaw fii suñu Sénégal mais arrêtons waay nit ñi nañu fonk nit waay man loolu moo ma metti awa nañu changer système politique teg un politique sociale investir sur l'être humain jox ay émergence yu wax yëpp tabax ay otoog ay pont ay wañ ak yooyu yëpp c'est vrai que ne dëkk da koy développer mais parallèlement importance priorité mooy nit mais nit boobu tey jii euh, bu fekkee ne dafa am fenn foofu far euh, euh, la case prison et bu ibbil nañ la ko ni mu gën a yaatoo gis nañu léegi les mandats de dépôt à n'en plus finir les contrôles judiciaires à n'en plus finir et benn camp rek lay laal mooy camp opposition bi tey jii. non déggoo dafa dañu nekk comme si benn jungle actuellement politique gu Sénégal comme benn jungle la rek. c'est-à-dire que dañu toll ci situation bu jaxasoo te 2024 a ngi ñëw. mais qui pour siffler la fin de la récréation. mais c'est ça ce qu'on est en train de vivre bu fekkee ne tey euh, le Sénégalais ne peut plus faire confiance en la justice le Sénégalais ne peut plus faire confiance aux institutions yi nga xamante ne mënoon nañu aar. mais révolution boobu te ma la wax. xam nga moo tax deux mandats yi ñuy wax ma dëkk ci loolu. Mhm. xam nga dañu nekk ci benn recherche de leadership système de recherche de leadership un leader modèle moom la ñu wut depuis des années. ñu ngi koy wut ba léegi amaguñ ko dafa am benn procédure bu nga xam ne nag moo ñu koy faciliter. mooy lan mooy deux mandats yooyu c'est-à-dire duñ bëggatuñu nit bu toog rek éterniser wu ci benn euh, politique ci benn ci suñu réew bi rek toog rek def lu ko neex di comme du temps des socialistes ay 30 ans 40 ans nit ci di souffrir léegi buñ ko defee deux mandats da lay wóor ne deux mandats yow c'est-à-dire mën nga def sax benn mandat soo deful soo defee yëfu cuune ñu dàq la nga dem gis nañ fi euh, Trump. Mhm. ñu dàq la keneen ñëw. mais yow soo liggéeyee ñu bàyyi la deux mandats te bu dee yow liggéey nga liggéey bu baax su la neexee da ngay bàyyi keneen ñëw léegi su dee am na ku la raw yow jeexal nga bu dee nag yow kee moom mën nga sax ñëwaat jëlaat place am. Mhm. donc procédure la bu nga xam ni dafay promouvoir euh, la leader qu'on recherche les deux mandats là mais bu dee kenn rek toog ne man rek la. Euh, tey sa problème de deux mandats se pose au Sénégal parce que maintenant au lieu de parler de deux mandats on nous parle de deux quinquennats tey ji Djibril déggoo ma ni la xam nga sénégalais yi du ñu ay xar mais nag gars yi ñu ngi leen di comme wax naa la ko ne quand man am na benn euh, euh, djiboutienne seen me rappelle djiboutien djiboutienne quand j'étais à Ottawa mu loolu la ma doon wax les intellectuels de l'Afrique sénégalais yi quand même muus nañu wute nañu ak pays sous région bi nga xam ni ñoom bu dara amee rek ñu génn ñu reyanteel ñëpp a ngi xaar 2024 mais c'est ce que je dis à la jeunesse de faire attention de s'inscrire les primo votants ñoom ñoo mën a def cette révolution jeunes yi jóg leen jóg leen ngeen defari seen carte électeur ci inscrit ci liste yi mais on avait entendu Sidi Lamine Niass à son temps dire que ne dëkk bi du ay carte moo koy soppi révolution moo koy soppi pour vous de quelle révolution il parlait mais man je parle de cette révolution pacifique parce que révolution euh, lépp ci jàmm mën na am ci jàmm gis nga Abdoulaye Wade je me rappelle en 2011 j'étais avec Sidi Lamine Niass ba muy woote place de l'indépendance je me rappelle si lañ ma tafoo sama xaalis sax maa ngi fa woon hmm. mais ces ces morts là ces quatorze morts là yi nga xamante ne suñu politique dañu xeex dee mais ñi dañ leen war a jox cër ñooñu gis nga monument bi monument bu nekk Colobane dañu waroon gravé ku nekk sa tur ci biir. bind ku nekk quatorze yëpp. Mhm. lañuy waroon del defaral leen seen tur ci monument bi parce que ñooñu dañu xeex pour démocratie bu senegal te bakkan benn bakkan bakkan dafa fort nit nee la mooy gën di mbindeef mais nit du xeex pour benn affaire dee pour ñafe pour ñu. di di pour suñu réew soppeeku ndeysaan ah, seen frères yi seen sœurs yi ñëpp jooy dee sa nit dee na pour gëm sa réew. dee ba pare ñu jël la suul nii rek fàtte quoi après ñeneen nit ñeneen ñëwaat ni toog man ni ay golo lañ dëkk golo lañ nekk quoi non ay nit lañu ñuy dee ñooñu waruñu leen fàtte dañu leen war a immortaliser bind seen tur ci seen monument bi di leen jox leen valoriser leen ba nga xam ni tey. kenn du fi ñëwaat di sañ sax naan yaa ngi def ay yenn. mais impunité moo am ci réew mi. non c'est-à-dire que politique yi ñoo ñoo classe politique bi parce que ces débats anecdotiques là yi ngay déglu ci médias yi en fait sujet wu en profondeur yi gars yi waxuñu ko. gars yi dañ leen di divertir ci ñàkk fayda. quels sont les sujets euh, qu'on doit aborder mais cette révolution générationnelle buy ñëw en deux mille vingt quatre beneen génération mooy dugg si bu nga xam ni nag am na yi nga xam ni dañuy ñëw pour sauver sa peuple sénégalais. pétrole baa ngi ñëw gaz yaa ngi ñëw gangster yu mag yaa ngi taxaw duñu ñu xool. voilà mooy colonisateur. colonisateur yi nga xam ni ay ay ay loolu la ñuy wax les renards là mooy les renards yi indien yeeg chinois yeeg ñu fi taxaw di roore. ñooñu c'est-à-dire que ñooñu beneen façon colonisation la ñuy def ci suuf ñëw jënd suñu parce que dañu yore xaalis dañu ñëw jënd suñu ay terrain suñu ay matières premières yeeg yëpp gerte yeeg phosphate yeeg minéraux yeeg du gis dara ñooñu beneen façon la. am nag ñeneen ñi nga xam ni moom dañu ñëw taal dëkk bi mais kon tey naka nga gisee suñu politique diplomatique gu réew ndax ñun dafa mel ni dañoo baax trop ubbeeku trop ba nga xamante ne lu ci bari bëri jëfewuñ ko yow mi nekkoon bitim réew également la politique migratoire temps yi moo occupé également l'espace naka nga mais mais boo xoolee dëkk bi xoola logement yi sax ñuy wax c'est vrai qu'il faut faire des logements sociaux mais étrangers yi ñoo ñëw fii sous région yi di louer ay appartement deux cinquante mille cinq cent mille man am na benn bailleur bu ma sama kër duma ko louer sénégalais mais tu te rends compte parce que ñëpp dañuy màbb si dugg si ba pare suñu frontières yi en poreuse gars yi di dugg nu mu leen neexee dañu dugg si di dugg si amul benn contrôle ba nga xam ni soo xoolee dëkk bi taalibe yeeg manjaay yëpp soo xoolee sax des fois ci sous région yi lañ dugg si di ñëw nee naa la yalwaan dañ ko war a criminaliser fii condamné ko képp ku jël ku ñu gis nga taxaw ci mbedd bi parce que loolu signe de pauvreté la bu ñu bëggee génn ci pauvre kii bi te ñu nekk nii am na yu nga xam ni waruñu ko bàyyi ku nga xam ne gis nañu ngay yalwaan wala nga taxaw ñu ñëw dugal la kaar bu dee ay sénégalais lañu état bi moo leen wala jël en charge. Mhm. jox leen ñu lekk dëkkal leen c'est leur c'est seen droit la ay Sénégal bu dee nag étranger la ñu yëpp la dugal ci oto wala ci avion delloo leen seen réew. mais ñun ñu nekk ci réew jàmbur yi également tey euh, ñu ngi tudd wàllub euh, Tunisie les pays africains ñu ngi génn euh, di jëli seen ay ñooñ ñun jëliwuñu suñu ay ñooñ mooy les relations diplomatiques qu'on a également avec beaucoup de pays. waaw gis nga j'étais au Maroc ma ànd ak sama benn xaritu marocain ñuy dawal ba si ak ma gis ci feu rouge yi nit ñuul yi nu ñu fa baree di seelwaan mais affaire bi ça m'agressait quoi ma ni mais ñii nit bare nii dañ lay sax dañuy sax dévaloriser nit ku ñuul ci dëkku naar yi ñëpp di sama xaritu naar bi ne ma non ñii ñëw ñu fi pour liggéey ah ñii dañ fi ñëw pour jéggi pour dem transition lañ fi nag ñëw nag fii càng fi donc loolu moo tax te dañuy dem ba mujj bi dañuy agressé naar yi loolu la gars yi comprendre dañuy dem ba nit yi. gis nga euh, ñëpp dañu bëgg dëkk dëkk fu rafet gis nit ki mais bu ay nit ñooy di la agressé xoolal tamit immigration clandestine bi déggoo man la échec la de nos politiques mais est-ce concevable qu'un président tunisien mu tenir de tels propos euh, antisémites euh, des propos racistes autant pour moi euh, par rapport ak li nga xamante ne moo fa xew. no moom laa lay wax xam nga racisme boobu te ñuy wax noonu dafay am lu koy yee dafay am lu koy. des fois dafay dafay jéem a wax pour population bi parce que dafay wax. lu population bi les gouvernements de ces que ñun on gère très mal nos pays ba nit xale yi découragé di daw di di di di risque seen vie di wax Barça wala Barsax di dee y a milliers de morts su yi dee ci géej. Mm-hmm. di di pour génn pour jéem a dem rek pour am des lendemains mais loolu ñun ñoo échec ba pare boo ñëwee fi gis ay palais ay kër ay villa mais mais yi saawaay. c'est c'est nous c'est nous c'est quand je dis c'est nous ce sont nos nos nos politiques moo tax sànq ba nga may wax foo dem ak yi mën la nañ def attention parce que da ngay gis ay groupe bu taxaw fekk ne groupe bi yëpp ay groupe bu segg lañu xam nga segg mooy des yi nga xam ne il sont là pour jéem a taxaw après tibbaat sàccaat defaat la même chose. c'est hmm. pour cela dañu nekk ci benn tournant bu nga xam ni <laughs> mais il faut qu'on soit très très prudent mën nañu folli mais mënuñu fal. Hmm. bi yoon wartuñu def erreur yi ñu defoon yi ñu def yi d'accord yaa ngi doon wax euh, Mamadou Dia li mu doon prôné li ci ëpp moo le panafricanisme waaw tey euh, panafricanisme boobu dafa am loo xamante ne jur na ko rawatina si sous-région bi tey on a entendu le discours de Macron qui est en train de charmer les Africains maintenant euh, tey ndax jàpp nga ne loolu dina prospérer li xewoon dina xewaat non tubaab bi moom esclavage wax naa la ci léegi benn anecdote mhm. xam la ñuy dawal pour noot amul ñu lenn lu ñu wut ci ay defaraat suñu dëkk kii ñu ngi xool nu ñu piyee suñu dëkk moo tax balay wax sànq suñu làkk suñu révolution nañ ko defee ci wolof te wolof bi sax ñu ngi koy jàng parce que toogee journal télévisé bon on est en train de faire ça ñu ni bon écoutez ces singes là am na sa benn xarit bu ma ko doon wax bu nekkoon Québec mu ne ma jibi lu gën a garaaw ci tubaab boo toogee di waxtaan ak ñoom dañ naan xolal dañ lay teg comme xar comme golo c'est-à-dire que nit ku ñuul perception bu ñu am si ñun moo tax mënoo fa nekk kilifa parce que suñu dëkk xoolal ba pare nga bëgg dem ci dëkk tubaab bi bëgg leen jiite mënul ne dinañ la teg fenn fu nga xam ni nag sa compétence y a des exceptions parce que y a on a des grands intellectuels africains mais malheureusement dañu dem ci organisme yu mag yi wala xam nga ñu dem ñu dugal ci benn paxusu bureau foofu ñuy jël seen cerveau yépp di ko li leen ko yulin mhm. boo ñëwee fii dañ lay humilier fii incompétence bi la ñuy jiital ak borom làmmiñ bu rëy bi et puis ku nga xam ni théorie euh, les phrases euh, français làkk xoolal sax soo xoolee politique bi avocat littérat littéraire philosophe nga baal ma ci terme